waaw mais foog ñu modifier loolu loolu laa bëgg dégg kon mën nañu suñu si si volonté def élection avant le 2 avril. à condition mu am consensus bu yaatu large consensus léegi nag limite bi moom mooy. limite bi lan la. limite bi moom mooy mbirum consensus ci droit boobu daa nekk notion bi nga xam ne droit stabilisé wu ko maanaam consensus bi euh, ñu ne nan lay former oo kenn xamut ban dayo la war a am souvent. ka nga xam ne mooy wax mooy décider que rek am na consensus bu yaatu et que bu waxee ne am na consensus bu yaatu euh, pour nga contester ko ci mbirum yoon mënoo ko contester mënoo ko yóbbu conseil constitutionnel mënoo ko yóbbu cour suprême d'une certaine manière donc moo tax ma ne la tey dañu nekk ci benn glissement sémantique bi nga xam ne lépp Macky Sall moo ko def parce que déjà ba mu ñëwee tey bu ñëwee tey di ñu gëmloo ni euh, mbirum légalité moo tax Euh, mu bëgg a corriger processus électoral bi pour rocci décret bi bu gëmoon légalité comme nu mu koy wax day jëfe dogalu CEDEAO bi bu jëfe woon dogalu CEDEAO bi euh, bu nga xam ne ne woon na ko mu dindi mbirum parrainage du ñu am collectif wu recalé wu parrainage yi mm-hmm. tey donc mënuñu gëm dañ dafa am agenda personnel am loolu la mais ginnaaw luy am am na ba pare mm-hmm. man li ma jàpp moom mooy la surtout ci procédure bi. ñu war a pour li nga xam ne maanaam jaxase na carte ba pare. te nee na day dem te gis ngeen ko newul ne day dem kese mais nee na boo leen moytul sax damay teg lenge yi ci suuf du ko jébbal kenn parce que mën na démissionner donc tey eh, waxoon na ne euh, du def troisième mandat mais lenn moo mën a tax mu def troisième mu toog mooy bu amee chaos sécuritaire kawo sécuritaire amut mais jëm nañu inventé benn chaos institutionnel. kaw institutionnel boobu gis ko ko mooy li nga xam ne moo fi am ba arbitre bi jënn siffler fin wu récréation bi muy conseil constitutionnel. Hmm. mais léegi nag ña ngi ñu ngi jëm ci dernière étape bi. mooy jéem a indi benn kaw juridique bi nga xam ne tey day ñuy nekk ci benn situation bi nga xam ne vide juridique vide du pouvoir comme noo amoon Haïti ba ñu reporter élection yi à 48 heures loolu moo nar a am Sénégal bu ñu deful ndànk moom mooy lan. nit ñi souvent même damay gis ne waxuma journalistes yi kese mais même des constitutionnalistes dañuy jum ci analyse bi parce que dañuy wax vacances du pouvoir euh, mais nekkuñu ci vacances du pouvoir daa am vide du pouvoir ak vacances du pouvoir vacances du pouvoir constitution daf ko prévoir lan la ko wax lan la ci wax dafa ne président bu démissionné bu amee empêchement mhm. wala bu amee bu dee defa décédé mooy trois yi daal trois yooyu démissionné wala mu décédé. wala empêchement am lu ko tënk. mën na nekk mbirum yoon wala mën na nekk gàllankoor bi nga xam ne feebar la. wala leneen ci wër gu yaram bu ñett yooyu amee moom mooy événement buy déclenché conseil constitutionnel day constaté événement bi événement bi am na mu déclenché benn corpus normatif bi nga xam ne mooy appliqué wu maanaam lenge yi dañ koy jox président wu assemblée bi nga xam ne moom moo koy wuutu exercer fonction yi d'accord kon donc kooku nag yoon dafa ne bu ñëwee di wutu président bi nga xam ne dafa nekk situation boobu mënta changer constitution et que dafa war a tëgg élection yi effectivement ci 60 jours ci ci 90 jours 90 jours yi nga xam ne waa non gën kaa néew ci 60 jours gën kaa yéex 90 jours maanaam ñaari weer ba ñetti weer. ba ñetti kon fii vide boobu moom mënuñ ko fee. nekkuñu fi parce que nee na du démissionné. Euh, mu ngi sant euh, mu ngi suñu kanam donc amuñu empêchement amul démission amuñu décès donc ñett yooyu amut léegi lu nar am moom mooy vide du pouvoir vide du pouvoir moom mooy ñu yegg ci situation bi nga xam ne day tegle ngay ci suuf te ñu président mais bu ñu nekkee ci loolu parce que moom parce que nag boo koy wax baa ngi dégg ñuy laam-laame di wax article 36 parce que article 36 bi jur na jur na ay ay problèmes yu bëri ah par rapport ak euh, xaw ma ni ñu ko interprété xaw ma lan la mais man je pense que li ci wax leer na nañ ah. dafa leer article 36 dafa ne président bu bees bi nga xam ne dañ ko fal kooku maanaam euh, du toog tant que nga xam ne moo ko jiitu maanaam président bu nekk en fonction euh, donc en tout cas day toog plutôt kooku ku nekk en fonction day toog ba ñu installé ku bees ki bu soog a jóg abal ko fauteuil bi lu mu wax dafa leer c'est-à-dire dañuy un dañuy fal président bu bees loolu amut bu dee kooku dañ ko fal day taxaw xaar néggandiko ba conseil constitutionnel installé ko ci ay fonction parce que constitution day distinguer entre président élu ak président en fonction en fonction léegi nag mbir bi moom mooy Euh, article 36 lu muy régir moom mooy day leeral rek ci nga xam ne euh, fal nañu ko la 25 dafa war a néggandiku du toog a gum du laaj sais bi tout de day xaar moom. ba conseil constitutionnel installé ko ci ay fonctions am kële jóg abal ko parce que siège bi warta vide. Hmm. ça doit être toujours occupé. léegi si léegi foofu nag. tey président Macky Sall moom ci boppam sax leeral na mbir mi. boo leen ko dégloo bu baax. Euh, constitution article 36 dafa ne le président en fonction. le président en fonction. reste au pouvoir. bon xam naa ne nekkatul en fonction à partir du 2 avril. <laughs> mais mais mais ci constitution bi man damay damay gis. parce que fonction bi il a été installé du 2 au 2. du 2 avril au avril voilà. Hmm. mais man damay gis si constitution bi. Hmm. su ma liiree ni mbir yi dépôt day mel ni dañ ne président de dafa am obligation président sortant hmm. organiser une élection. pour permettre wuutu gi mën a am obligation. non non non loolu amu ci. il est dans l'obligation d'organiser des élections ou pas. non président moom de toutes les façons il est dans l'obligation d'organiser une élection parce que xam nga bu ñëwee. mais ku nekk en bu ñu koy lire mooy li ma doon wax même article 36 bi mënoo ko comprendre bu dee liiruloo article 37. Mm. article 37 moom ci président ba mu ñëwee. dafa dafa waatoon dafa da ngay waat. dafa waat ba muy jël nguur ba muy toog moom dafa waat nii. dana respecter constitution bi ak loi ak règlement yi constitution dafa wax ne yow président boo fi ñëwee ba ñu wóolu la jox la doole ci maanaam laataa sa mandat di jeex période bi tant de jours avant da nga war a convoquer collège électoral bi ñu commencé organiser kan mooy toog est-ce que yow la walla yow boo jeexalee keneen mooy ñëw xam nga constitution bi ci boppam donc waatoon na donc le fait tey mu bañ a respecter li nga xam ne moom la jël comme engagement au niveau de l' article 37 mënu ko permettre mu am benn bénéfice am benn mandat résiduel bi nga xam ne bonus lay doon dañ ko koy buuñaa loolu mënta am mandat mënta am sans texte mandat amut sans texte parce que constitution bi buy wax le président en fonction reste en place day fekk ne kooku mandat am jeexagut c' est pas pour rien que tey président élection vingt cinq lay am et que le 2 avril la nit ñi di entrer en fonction lu tax ñu bàyyi diir boobu aussi day permettre non seulement mu am du am vide du pouvoir mais ñaari président yi ki nga xam ne il est nouvellement élu ak ki nga xam ne moo nekk en fonction di jeexal noonu ñu lëkkaloo échanger ay information stratégique joxante ay consignes seen cabinet yi rapproché wu ba nga xam ne bu ñu demee formalité rek lay doon installation bi moo tax boo gisee souvent dañuy ñëw rek installé rek buggee mu génn tàggatoo loolu mooy solo article 36 article 36 mais mais mais mais mais fi mu toll nii mm-hmm. man su ma ñëwaatee un peu delluwaat la en arrière mooy bu ñu bu ñu paree ci li ñuy def nii mm-hmm. nu ñuy demee élection dañuy tëggaat processus électoral bi yëpp yëpp yëpp parce que déjà gis naa ñuy jox fichier ñenn mais ndax lan la dañ koy tëggaat Ablaye Tine mi nga xam génne woon nañ ko sax day bokkaat wala 19 candidats yi rek point ñoom ñooy ñoom ñooy dem ci élection bi parce que loolu tamit ñu ngi wax fii politique di ñu wax droit fii finalement. waaw comprendre Abdoulaye Tine moom kenn génnewu ko moom mooy F1 <laughs> xam nga am na F25 mais moom mooy F1 parce que moom moo génne boppam laataa ñoo recalé. ah yow yaa génne sa bopp. voilà d'accord donc waaw loolu. mais comprendre naa laaj bi. fi nga bëgg a jëm maanaam tey. est-ce que ñi nga xam mooy recalé yi. est-ce que dañu koy tëggaat. comme li ma xam nga loolu tey ci yoon. parce que damaa gis euh, waa PDS c'est normal non mais c'est ku ci nekk bul jàppal ni on est en politique ku ci nekk aussi dara moo tax mu créer parti ku ci nekk dafa am ay nitam am ay orientation am lu ñuy gisee ña nga xam ne tey fexe nañu ba jàll mais ñooñu c'est légitime ñu ne dañuy tëgg élection yi seen seen seen droit la ñi nga xam ne dañ leen recalé mais c'est légitime ñu ne foog ñu reprendre ñi nga xam ne ñoom dañu gisoon ne aussi processus bi narul jaar ci dëgg ñarul jaar ci yoon comme ñun aussi suñu droit la le plus absolu ñu bokk ci élection bi donc ku ci nekk c'est légitime dañ ko koy nangul mu défendre position amul kenn ki nga xam ne am na droit jéem a imposer benn pensée dominante ne dañuy dem ci processus bi alors que ñoom ñëpp xam nañ ne laluwul ci dëgg àndul ak ci yoon et puis tey bu dee dañuy waxante dëgg te yàlla tax euh, processus bi est-ce que mën nañ jàpp ni raisonnablement buñ ci demee ba yegg ci jàppandal bi président bi nga xam ne dina toog kooku dana nekk président bi nga xam ne dana dalal réew bi alors que tey gis nañ ko déjà 2024 daanaka nar nañ ko perte parce que février déjà souvent ci la touristes yi doon ñëw ñu ne élection ñu ne Pâques ñu ne noo dañuy dem jënd ji Macky Sall pour 2 avril alors que day tombé ci vacances su Pâques yi moom mu jël élection yi yóbbu ko décembre bi nga xam ne daanaka saison touristique boo moytuwul c'est mort c'est pareil aussi pour le planning des investissements donc bu ñu deful ndànk 2024 ça risque d'être économiquement une année perdue moo tax ma jàpp ni facteur yooyu yëpp tey pour ñëwaat ci njëlbeen maanaam moo yóbbu ne tey mbir mi dafa dépasser problématique u droit tey bu ñu bëggee élection yi am élection yi mën a am d'ici le 2 avril mais déggoo lay doon rek consensus waxtaan ba juboo mm-hmm. euh, ñun bokk nañ ci ay kuréel. Mm-hmm. Euh, am nañ aussi suñuy vision. Mm-hmm. kenn mënuñu tere ñu wax ñun ban lecture même bu dee ñun ñu dañu leen di comprendre li nga xam ne peut-être majorité bi ñoom lañ noonu la ñuy gisee. Mm-hmm. mais aujourd'hui aussi fokk ñu nangu benn mbir. Euh, c'est pas parce que nit ñi dañuy gën a yuuxu ne nii la ñuy demee que noonu la ñu war a demee ñu loolu taxuñu dugg ci politique suñuy idée dañu koy assumer. avec force et conviction et que ñun ñu ay nit yi nga xam ne dañ leen di jëri wala ñu leen di jaarale fent donc ñooy dem demee suñu xel du Macky sàll du ñeneen tey kenn moomut kenn kenn dugalul kenn politique ku ci nekk dara tax mu créer partim mu ngi mel ni tey nga nekk mbër taxaw ngembu ne da ngay dem bëre ji keneen ñëw nee la noo tekkil sa ngem da ngay ñëw nekk sama ginnaaw mbër luy loolu luy ndeyam <laughs> comme on dit wolof donc boo tax foog nit ñi nawante ñu respecté wante bu loolu amee nag ku ci nekk muy biir opposition bi muy opposition majorité ku ci nekk respecté sa moroom ñu xool ban xeetu déggoo moom la nit ñi mën a teg pour génn ci situation bi déjà man man foofu daf may tax moo moo moo tax may laajte euh, fi mu toll nii ban moyen d'apaisement moom lañ